la Diop nañu yónni yàgg. wàllu ay xale lañ luñ def stade bi. lii am na mbër yu mag yoo xam ne mënuñu ko. duñ ko def. mënuñu ko. na xam la lamb bàyyi xel xale yi. waaye ndeysaan xoolal ñaari xale yi. ndeysaan Fallou. arbitre lamb bu tollee fii. arbitre buy génn seen diggante. lamb ji di jeex. ndeysaan arbitre suuf la na. dégg nga noonu. ak ki nga xam ni mooy Gackou 2 ndeysaan Leewtoo ba dig na le 29 octobre fii ci arène nationale Fouta Production moo fi woo doomu Grand Yoff doomu Grand Médine bi su tëggee lamb neex. oh oh Pokola Baldé day dem de. day dem. day de oh day dem moom Pokola door na. day dem de waaye Fallou tey le 13 janvier Baba Diakhal bu Afia Fallou. Pokola loolu lu garaaw la. lu neex. loolu lu neex. tey yaaram aar. Pokola day dem de. day dem ña door Pokola day dem. door na Pokola ngi kabaru cogomeet. ak eh, eh, mu encaissé ku wóorul. ak ñi dem. ay eh, protestant ndax waddul Fallou am na protestant bu naaw de. dañuy xeex. am na protestant bu naaw. am na lu wadd. téere la. Pokola ak Gackou 2. eh. Sikaat mu daan noo am. dina am kay. Dóor waay waay Pokola Balde ay waay ndax Dóor mu daan du am. Dóor Dóor Pokola. Dóor Gackou 2. dinañ ko lay Dóor oxo juutal Modou Lo Balla Gaye juutal lay lay la la daan juutal jël na jaana juutal jaana juutal juutal mu daw jàpp ko juutal laa ja jeex juutal xale bi juutal booy bi juutal waaye pokolan ay gàkku de pokolan ay pokolan pokolan pokolan ndax ji jeex lan moo am ndax arbitre leen woo lu lu am am na lu xew de am na lu xew am na lu xew de am na lu xew am na lu xew de président ba am na lu xew de protège ba ndax vaar du am protège ba ndax vaar bi lan lay jëriñ protège ba ndax vaar bi lan lay jëriñ Pokola daan na ko lan moo lu ah, Pokola dafa Pokola daan na Gackou de lu def na kat abi Pokola ko daan ba pare lu sëñ Bamba daan na ko lu ala kese daan na ñu Pokola lay topp lu xew Pokola lay topp non Pikine dimanche dimanche Pokola dooma man dama ne Pokola bu ayee xoolal man ah, Ama Baldé ak Pokola ku ñuy bëreel moom faral mam Mbacke combat bii jeex na ba nopp lii politique la politique sa waay yéen ñii caméra gis ngeen Pikine moo mën a bëre dimanche mu loo Nucleity General Geno Jova